عبده ورسوله أما بعد ينبغي بالجي اللجنة المسيحيين صاروا تدوا ودسو فاتحة أجب يسوع في ونمنو الحمد لله اللي ونمنو أسلف كي لنك الحمد لله في أي معاني تيجي ورا بلا إن شاء الله تعالى ولا بلغ ورا شريك ورسول رب العالمين لي معنى رب العالمين ak أي دلائل dalailam أي luy ay lu معاني nekk daal رب العالمين صفة بلفظ الجلال وهي عبارة تتضمن توحيد الربوبية لله تعالى اللام في العالمين لاستغراق الجن أي أن الله تعالى رب جميع العالمين رب العالمين بوقد العرب والنحو صفة لفظ الجلال الحمد لله الله آه، جملة دي موي موي موي موي صفر يعني هو رب العالمين موم موي برب العالمين الحمد لله رب العالمين رب موي صفر رب العالمين رب موي صفر لله حبيب جار كون ده حبيب جار لفظ جلال رب العالمين يلي تكشموين يلا موي رب غولم لين دافن موي بروم غولم لين دافن موي تشاك تموم غولم لين دافن تموم دوم مو ان سفر لكم مو ان تهب غولم لين دافن لولا رب العالمين بشي آه، لابو أل لا بدك العالمين بالسوراق الجنسية العالمين البطن المبول من لا فلي مقدسة كن مم لنادي أم التوحيد دي وحد توحيد الربوبية توحيد الربوبية نك مم ما يدرس بنا خمنا دي مم من ورا قالت إن شاء الله سمونا كت رب العالمين نوقف نوقف جنب مباح سبايك خل مباح سلم أمبو سأي bu ko defee nu dendale ko ak suñuy fas fas si aaju fas suñuy fas bu ko defee tawxiidu rububiyya mooy lan tawxiidu rububiyya mooy nga wéetal yàlla ci na moom dong moom moom mboolem li nga alaalamiin mooy lépp lu dul yàlla lépp lu dul yàlla mindeefoon la lépp luy mindeefoon saa borom yàlla dong nga ko moom te it moom dong moo ci yor dafa gindi moom dong moo sàkk mindeefoon yëpp asamaan ak suuf ak nit yeeg jinne yeeg yi am yëpp yàlla dong nga ko moom ndaxte moom dong moo leen sàkk te itam moom dong moo leen di wërsëgal moom dong moo leen di dundal moom dong moo leen di rey. yàlla dong moo leen moo mën a yëkkati moo mën a wàcce moo mën a def moo mën a dindi ci dara lu aju ci li laa sonn bu defee kon loolu mooy maanaam suñu borom yàlla dong dong dong moo yor def ak dindi ci mbiri mindaafoon moo gis rek ci mindaafoon loolu mooy rab moo mooy taw xadrum bi may nga fas ci sa xol may nga gëm ci sa xol nga xam ci sa xel te gëm ci sa xol te jëfe te jëfe li nga xam ne moom la gëm googu laaj ndax gëm gi faaw nga jëfe li mu laaj nga gëm lan nga xam lan nga xam te gëm ne yàlla rek moo moom mboolem mbindaa fa nun ndaxte moom rek moo leen sàkk te moom rek moo yor dafa bind ci seen mbir yëpp yëpp yëpp moom kese bokk ko kenn wa ma tax xadar gu biir suñu borom yàlla mi ngi koy wax ci alquran ni الله لا إله إلا هو الحي القيوم مغار الله يلا لا إله إلا هو موي بور بنا خمنا أمون كن كل يوجام كل الحي موي كسا من كسا موي أجي جنب جنب دامك القيوم موي كسا موي دم موي تتخري مولن بري من داخل موي كسا موي يرسا موي سفدك سنبولن بري من داخل قد وقف القيوم في رضي الله ونن فيما يقوم بتدبير شؤون جميع الخلق من ظلم رضي الله موي آه، تخوتي دخل مدري موالا من الله صلى آه. الله عليه وسلم فبقى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دانا طنيانا بيتامل الجدي بيتامل الجلي الجدي بوطن وقت الله أكبر فتك لفظ نسجي تدنبه yanni sai budan tambul jindigi daru ko ubbe allahumma lakal hamd an taqayyimus samawati wal ardi wa man fihim ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن اللهم يا سما بر الله لك الحمد ما نجلي جبل اكن مولم خيت كان في يال البوم ما نجلي سن انت قيم السماوات والارض يا دون يا تخره mbiri a yi ak li ci ne ak suuf yi ak li ci ne yow dong yaa taxaw yaa ko taxawal yow dong yaa ci def ci biir loolu ñaan googu ñaan bu gudd la mosoon nañ koo bind indil leen ko yaakaar nañ ne mokkal ngeen ko bu aajoo bindaat mën nañ ko bindaat. Mhm. ci sootu sajda boo demee suñu borom yàlla na nga fay beesal fas fasu tawxidu rububiya wan ni moom dong. mooy dogal mbir yi moom dong mooy def di julli moom dong mooy yor fas ak fecc mu ne yudabbiru al amra min as-samaa'i ila al ard yudabbiru al amra yàlla dong mooy dogal di doxal mbir yi min as-samaa'i ila al ard mu doon ay dogal yoo xam ne da dogal ay décision yoo xam ne décidé na ko dogal ko muy coobareen mu wàcc jóge kaw asamaan lépp loo gis mu yëngu mboo lépp loo gis mu am xamal ne loola yàlla mooy ki ko tadbir mooy ko ko doxal الله عليه لا أجد bu ko defee kon ñi nga xam ne dañoo gëm ni am na ay sëriñ wala ay wali yoo xam ne yor nañu dara ci dafa dund ci adduna bi ñi nga xam ne dañoo gëm ni am na ay sëriñ wala ay awliya moo xam ñuy dund lañu moo xam ñu ñu dee yoo xam ne mën nañoo lor kenn wala mën nañoo jëriñ kenn mbaa mën nañoo defal kenn dara wala mën nañoo jëriñ kenn dara wala yor nañ dara ci soppandiku ci mbir àdduna bi seen pas-pas boobu pas-pas bu sànku la bu ñàkk dëppoog tawxidu rububiya la te itam lii wane ne seen pas-pas boobu wérul saa borom yàlla moonu ko wonal boppam jamono yi mu waxee ak ci gën ci nit ñi ki nga xam ne moom weesu na sëriñ weesu na waliyu ab yonante la te du yonent bu ndaw ndax te mboolem xeetu yonent yi moo ci gën moo ci ëpp martaba moom la ci yàlla gën a bëgg te mooy sayidna rasul sallallahu alayhi wa sallam ci gën ci mindaafoon yi yépp dégul leen li ko sama borom yàlla wax li mu ko wax lool lan la da ko ne qul waxal yow muhammad dekk waxal nit ñi leen laa an sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam قل وخل يو يننتي على محمد وخل يجنل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا من يرمى سمن يرمي بف من ما يرمي سمن بف من ما يرمي سمن بف سبرم يلا من النقوة وعي خنا دفع بذب سموه خم لمنم وعي دفع من دفع نور دفع بذب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك تي موي تي موي looloo tax mu wax loo ko ko na ko waxal neen déclaré ñëpp ne leen mu ma sama njëriñ yoruma sama lor munumaa jëriñ sama bopp munumaa jëriñ sama eh, eh, munumaa lor sama bopp ku munta jëriñ sa bopp munoo lor sa bop xam nga ne munoo jëriñ meneen mbindaafoon munoo yor mel ni mbindaafoon aha lu dul la yàlla soob la yàlla soob rek kay am du ma soob mooy am du lu soob mel ni mooy am li soob yàlla dong ngay am aha te itam su fekkoon ne xam naa lii xew ëllëg lastaktartu min alxayri kon samay xéewal ak samay yiw dana ci gën a bari mu nga waa mastanee suu te kon lu metti duma dal xam nga ne sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam keroog ba ibrahima doomam ji ndaw jooyee de ci ay loxoom génn àdduna yonente bi yërëm ko lool bëggoon ko lool ndax lim doonoon caatam bu góor te doom yu góor yëpp teel a gaañ ci seenu ngone Ibrahima moomee yonent bi bëgg ko ba fa mu ko joxe sax dafa daal dem di ko seeti moom yàgg mu feebar euh, euh, euh, ba mu yàgg muy sukuraat yonent bi di ko xool mënu ci dara ba ruuga rotee sayidna rasul sallallahu alayhi ko soro génn ay rongoñ daa بتي ديبنا جلال غول وإلا من يمد وخذوب اللي يخيان سبحانه وتعالى كان بابا وانا ناني يالليت وانا ناني سيدنا محمد تمون وانا ناني بشك كن من موير تي دخل كان إبراهيم مميدي بكنياك شو وقت وانا مكنياك كان دي دلو نحتى بغون مدلو تبانيا دي موتا خون مجلل غول يجواني نحتى الأسيس لولو قدر لول ما يمالام لو كنت أعلم الغيبة ما استكثرت من الخير وما مستني السوء كن مك دوما دال تخمي لي مك دال ما ينتي بتاي خمي لي اوت مكنا لول ذاك ما ينتي مو يقف الدنيا كن لا يدف الدنيا في اوت كن ديك لين دال واي كيو دف الدنيا كان لا مو الله سبحانه وتعالى كن نك دغان في دني في نيت مو يدف الدنيا مباشه صحابي مثل التابعي مثلا كنيت بأسري ولا ولي أها بكرة فين لم يخل عاجب إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون من ثم درر اللدل نو ويال يلي ما ورا الليرة لما ليرة لو بنتمت ثم كجانب ليرة بمو ليرة ما بدل نتجاه ندعنا الجنة ñi nanguwut a jaar ci yoon wow nag ma xupp leen waar leen ne bu ñu dëppul wala xanaa dañuy dem naaru jahannam kon moom moom jot li rek ko ci war ab ndaw rek la. ba tey ba tey ci beneen aaya سابرم يالا محمد وخل لي وخل لي يالا محمد وخل لي نلن من كت جملن من مك ما يور من يسير يالا بلو من يحدث كما يحدث كما يحدث يقول كيف خوما غيب وخوما ليس وانك كيف جملن ملاكلا نون لجي دانو بغ ab sëriñ duut yem ci doonu sëriñ ab li maanaa doonu sëriñ doonu sëriñ mooy nga doon ku xam alquran ak sunna lu mu di ca jaar sa kem kattan di ca jaarloo sa njaboot loolu mooy doonu sëriñ ab sëriñ daa wuutu sayyidina mu daa jàngale di góorgóorlu ci aw fa mu daa aw di feñ ay ay taalibeem ak njabootam ci ñu jaar foofa ab sëriñ lii la ëpp koo yéesu ab sëriñ bu yonent yorul diina ju bees la yonent bi yàlla muhammad andi woon dong la ma la ma la mën a jàngale muy ak sëriñ mu ngoog ñun nag sëriñ bi léegi dañoo bëgg daal bu nu askanoo ci moom nanu yokk nan daal di am alal ju bari mbaa nan doon ku bari mbooloo mbaa ku bari daraja wala kuy fanu bëgg-bëgg aduna yooyu la ñuy léegi ci sëriñ sëriñ bu munul bu munul loolu yow yow doo sëriñ ah xanaa sëriñ bi yàlla kii joxe woon sër di sëriñ bi la da ngeen say yéen bi li ko yàlla wax loo du moo leen ne mukk maa yor xasaayinu samawaat xasaayinullah yàlla daa wax yéen bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko neen waxal nit ñëpp ne leen du ma leen ne maa yor nang ci yàlla mukk ne yàlla Muhammad loolu màngasinu yàlla mun ta sàkk ci màngasinu yàlla jox ko sopp jox ko mbooloo wala mu jox ko daraja wala mu fal ko wala mu mu ngoog jox ko ala loolu yonent yàlla Muhammad ginnaaw nee na moom yoon loolu munu ko na ko ab sëriñ di yore loolu mun ta nekk aha wala alamul xayba wax leen nit man xaw ma li xew ëllëg xaw ma li xew ëllëg aha سيد مولانا ملاكا من دو ملاكا دو ميت دونغلا لا لا يخلى من تبقى الله صلى الله عليه وسلم أه. متكنا إن أتبع إلا ما يوحى إلي من دو دفدر يدو السبق للموحي وخل يوم محمد وخل بإذن لن من دو دفدر يدو السبق للوحي كمن توحي تخمجين لولا من كتاب السنة أه. نعم نعم ndax ci gumba ak kii gis ndax yem nañu foofu suñu borom dafay séddale nit ñi ñaari mbooloo gumba yi ak njàccaar yi njàccaar yi ñooy ñi jaar ci alquran ak sunna gumba yi ñooy ñi nga xam ne jaaruñu ci alquran ak sunna boo demee ci afaman yaalamu ba tey yàlla dafaa séddalewaat nit ñi ñaari mbooloo yooyu أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى يلا وهني نف كلخم يخمنا تجمنا ني من إن شاء الله محمد لا لا ما يدب كلخم لا يدبكم لا خيم ناتي جمبا بمعنى كلخم أمر القرآن والسنة خمطو كيف مزمك جاوش كلنا لا جاك ودا جمبا بس آية دفعت لهم إجناري مولو ñun ñëpp fu nekk ni ñaari mbooloo la ñu képp ku ci jaar ci alquran ak sunna te tam ku ca aajir laa tudde njàccaar kuy gis gisu xol moo tax ñuy wax bu fekkee ne bii nag yow jaaroo ci alquran ak sunna koo mën a doon loo mën a jaar koo mën a àndal loo mën a am gumba nga gumba nga Sénégal gépp ñaari mbooloo yooyu moo fi am adduna gépp ñaari mbooloo yooyu moo fi am gumba yeeg njàccaar yi njaccaar yi mooy ñi jaar ci alquran ak sunna gumba yi moo ñu ci jaaru mu jeex tas loolu la yàlla wax la sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko nag neel man duma def lu dul topp li ñu wàcce ci man ci wax yi aha te sa borom yàlla li mu wax la sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko in attabiu illa ma yuha ilayya defuma dara lu dul wàccee top li li ma wax loolu war nañ cee bàyyi xel ca xol bu baax li mu ëmb léegi nag dellu ci tawxid rububiya dellu ci li sama borom yàlla wax loo sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam in attabiu illa ma yuuxa ilayya man du ma def dara lu dul topp li ñu li ñu waxi ci man sayidina muhammad bokk sañu lu dul topp li ñu waxi ci moom li li ñu wàcce ci moom te loola mooy alquran joo xam ne dañ koo booleeg dañu koo wàcceeg boole ko lu koy leeral te mooy li ñuy tudde sunna li ñuy tudde sunna dafa wàcc ni alquran wàcc sans borom yàlla moo na ko wax moo ne anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim ñun yàlla wàcc nañ ci yow muhammad sunna ngir nga leeral ci li ñu alquran bi ñu wàcc la leeral ko ci la leeral ci li ñu alquran bi maanaa anzalna لك ذكر لتبين الناس ما نزل فهنالك ما أنزل وهنالك ما نزل ما نزل بالقرآن ما أنزل لبيانه نك موي سنة القرآن والسنة لب دفع وات يا الله لب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سكان سيدنا لنان day am nag moom nii ab yonent te ci gën ci yonent yi sañu dugul te def dugul topp alquran ak sunna waaw kon moo xam dañ koy tudde borom xam-xam moo xam dañ koy tudde ab sëriñ moo xam dañ koy tudde ab wali nan la mën a sañ a toppe leneen lu bokkut ak alquran ak sunna loolu mënta nekk mënta nekk aha wala muy woo nit ñi di leen jaarloo ci su bokkut ak alquran sunna loolu mënta dagan ginnaaw sayyidina Muhammad sañu sallallahu alayhi wa sallam sañu lu dul topp alquran ak sunna kon keneen wasa noppi كان كان توانيك مثل لنا من بقة القانا كنا تكوتا وفاكنا ولاوي اها قبل الله سهما كوة تلنا من بقة القانا كنا سوك جل جنا يوضب لنا جنا في جيحنا كتي مجد مي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم الأبيان تدنا وم كنا جنا تدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ردنا القرآن القرآن يلا سيدنا محمد ممجد في فيه rek da nga wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon gannaaw Seydina Muhammad yonent amul kon sëriñ bi dib yonent wali bi dib yonent kon bu dee woote ci ci alxuraan su dafa ko jëlee ak nu muy walaatale loolu mun ta rek loolu daan ci gise bu baax a baax ne képp ko woon ñi di leen jaarloo ci ci lu bokk ci alxuraan sunna la nga leen di jaarloo ak sànq sa dong la du leneen mhm. li gën a li gën a metti loolu nag li gën a metti loolu mooy ñenn ñi nga xam ne euh, euh, euh, feebaru ñàkk xam da leen a dal bu baax a baax dañuy faral di sab ay melokaan yoo xam ne melokaan yu borom yàlla di ko askan ci ay sëriñ ko wàllu fat sëriñ bi teg ko place yàlla ko melal ci yoo xam ne melokaanu yàlla la am na sax ñoo xam ne dañuy àgg ci waxtu bi ne ko yàlla la démb rek wala bërki démb am na ku ma nettali ni benn waykat bu jigéen bu mag ci waykat jigéen yooyu nga xam ne ay seetaana dong lañu dafa dem ci kenn ci ñi tëdd ay sëriñ ne ko yàlla nga waaw ne ko yàlla nga man naa leen tuddal tuur ndaw si ak tuur tuuri ci ñuy tudde sëriñ waaye matu ko am na ba mu amee euh, euh, euh, kooka ma bal waroon naa tàkk bakkan waroon naa rot ndaxte yàlla nga def ko wax ku dul yàlla kuñ ko wax nga ne kenn xam nga ne def nga lu ëpp su ko wax dof la yow yow mi ne ci xam nga nit ku bon waaye la nu toll ci ñàkk xam ci yàlla jaamu te dafa na noo ci ah lu ne sab ak sëriñ jox ko lu bokk ci melokaanu saa borom yàlla ngir sabab li ñàkk fayda lu demee ni sëriñ boo xam ne bii day faral di ñaan te su ñaanee yàlla da koy nangu bu ko defee au lieu ñu ne sëriñ bi yàlla day nangu naan moom lu mu def lu mu mu am wala ñu ne daa yor kun yàlla subhanahu wa taala mën naa am sëriñ bi def lu defaat ko su nag taaliba ñoom di gën gëm di gën di nokkasu gëm goo xam ne di jëmul ci yàlla ci nit la jëm di gën di fab ay melokaani saa borom yàlla di ko ko tudde ak di ko askan ci moom ah man naa am sëriñ bi wala nit ku baax sax di wax ak nit wax ko wax ko lu ko arrivé loo xam ne ba mu koy arrivé moom kii wax feccewu ko te loolu mën naa nekk bu baax bu ko defee ki ñuy waxal أن لين عادي جل وقت يودي من لها شيء يولي مكر من بوجي لا تحمي وحلا للا عرب ذلك فسكو تدار ولي مكر فكت ولي لنا مملكة تدي واي يلا لك ودف نحن لك يلا لك لك صلال لو لب نون كي دف كلو مسكتوب لسكين في جيري ورنين كي وقت أها بكرة في تاريخ دجي رأي بكرة fexe ba lool di am di amaat pour ñu gën a fab kooku di ko tuddee melokaan di ko melal melokaan yoo xam ne sa borom yàlla moo ko moom ndax ñu gën di sànq sànq seytaan moom dafa bëgg ngën naari jahannam yàlla yàlla musal ci moom aa peut-être mën naa am ak dajjante rek la wala lépp loo xam ne ni sa borom yàlla la soob mu bëggoon mu amee noona nga dem ci Abdul Aziz Touré nuyu ko mu waxtaan ak yow wax la ñett li la loo xam ne dan ko koo mbaa da koo wax ko garaad na in ab day kër de waaye moom moom day moom mu ne koo de wali yu mag la koo de moom moom da lay wax seen jur te fekk fekku te fekk mën naa ab day kër de xamu tax ne lim la wax nii waxoon nga ko baa defu xamu ko sax aha bu ko defee nag si muy waxal moom ginnaaw jaahil la day gën di fanatique rek di gën di nokkasi rek di gën di tax ab day kër de nga teg place yàlla aha bu ko defee nag sëriñ bi ñuy def loolu wax defal loolu bu ko yërmande yàlla dabul ba yàlla téye xol ba ba seytaane bañ caa dugg boo sàgganee bu yàggee mu gëm ko boo yàggee mu gëm ko Abdoulaye Touré ba yàggee di gëm ne moom lii dara la day yaakaar ne moom lii dara la te kii dara kenn rek Allah subhanahu wa taala kon su ne yawa ku dul yàlla dañ lay nax yàlla rek kat amul fi dafa ndool ku fi dundee lool yàlla rekkat ne ñi ci def ay jaamam lañu bu ko defee nag kon moom ni ñu koy wax sax mën na cee gaayu bu ko see bu bu ko yàlla koy wax nag moom sa gëm ko moom ab mu bu ko yee foofu tam seytaan bu ci ñàkk dugg di gën di garaawal di gën di yokk rek di gën di wane sax luy nuru ay karamaat ndax yu gën a تبقى وهذا عند نفي الكرامات الأولياء فأولياء الله الحقيقيون وهم الذين وفقهم الله على الالتزام بالكتاب والسنة التزاما يرفعهم الله به إلى درجة الولاية قد يمضي الله على أيدي بعض لما وقت جبلوا ما تيجينا amul ay nit yo xamne sa borom yalla de leena fete karaamaati awliyaa yi dafa amul ahakay am na ay nit yàlla yu sell yoo xam ne dañooy tënku ci alquran ak sunna tënk gu mat sëkk dina góorgóorlu ba yàlla yokk leen ndaxte suñu yàlla moo wax ne sama jaam euh, wutumaa jege ci lu gën a bëgg lu gën a euh, euh, lu gën a lu ma gën a bëgg li ko sant bu ko defee suma jaam bi bu dee góorgóorlu ci li ko sant di dox wut ma di góorgóorlu day mujj may ay loxoom mujj di ay tànkam di tànkam ba muy doxe di loxoom ba muy ba muy ba muy ba muy defe di bëtam ba muy xoole te su boobaa ku ko lor na xam ne man yàlla la la ko jëflanteel loolu bu wér kon nit yàlla yi am na ñoo xam ne ñi ay awliyaa la ñu nu nga am nañu ay karamaat waaye karamaat yooyu kat Euh, euh, mandarga man lay wane ne karaama la moo ñu tënku ci alquran ak sunna soo gisee koo xam ne kii jàngul wala jàng na waaye la mu jàng leen lu bokkut ak kitaab ak sunna la jaarul ci sunna ay kiimaan di génn ci moom bul ne mukk waliyu la da ngay xam ne dafa am awliyaau rahman ak awliyaau shaytaan awliyaau rahman ak awliyaau shaytaan mbooloo mu ci ne mën na caa am ay ay afraad yoo xam ne dañuy génn ay kiimaan awliyaa rahmaan bu ñu defee kiimaan mën naa nekk muy karaama bu yàlla def jaarale ko ci ñoom ngir kerale leen ko booleeg di leen nattu ba xam mu ngoog awliyaa seetaan nag dañuy def ay kiimaan ak di ko wax te fekk ci lépp ci seetaan la jóge sans borom yàlla bàyyi leen leen def istidraaj fas yéene bu ñu tuubul mu dugal leen ci naaru jahannam yàlla ñu ci yàlla musal ko donc il faut xam ne wali dafa am karaama dafa am waaye karaama moom awliyaa yi dañ ko ragal sax waaw te nit dina luy nuru karaama te fekk du wali du jullit bu baax sax loolu lépp na ko war a xam wala yu dëgg dëgg dëgg dëgg day def iltizaam kitaab day tënku ci alquran ak sunna te itam bu yàlla feeñalee ay karaama ci loxoom day tiit day ragal li muy ragal mooy day ragal yàq la fekk ko ci day ragal xolam dem ba gën ni moom ni dara la ndax yàlla ngi feeñal ci loxoom ay xaraam day ragal ñu askan ci moom ndax kalaama yooyu dara luy wane ne moom mii weesu nag jaam loolu lay ragal kalaama yi lu mu gën a bari wàllu yi dëgg-dëgg ndagam wàllu yi la day gën a tënku ci kitaab ak sunna te it day gën a ragal day gën a tiit lu mu gën a bari mu gën a tiit gën a xam ne moom mii du dara dul ab jaam dong ab jaam dong la ndegam sayidna muhammad moom mën ta weesu ab jaam wali yi sallallahu alayhi wa sallam wali yi mun ta weesu ab jaam mun ta àgg sax ci martabay saxaaba yi ya ànd nag sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ku doon laajte wali yu ak ak ak saxaaba ñuy demee ci wàllu martaba kam ko doon laaj da ko mbaam ma saxaaba ba daan war mbaam ma saxaaba ba daan war ànd ak sayyidina rasul sallallahu alayhi wa mbaam ma moo ëpp martaba wala yu boo sox loolu dafa mat xam bu baax wala yu am na ay karaama dina feeñ ci loxo wala yu waaye bu dee wala yu dëgg-dëgg ma mooy tënku ci alquran ak sunna ak ragal karaama yooyee te itam mën naa ci ay loxoom te du ko yëg wala yi dana def karaama dina feeñ ci loxoom te du yëg ne karaama feeñ na du ko yëg te bu ko yëgee ak bu ko yëgut lépp karaama yi du ko dolli lu dul ak ragal yàlla akub akub akub dana xam ne jaam la xam ne yàlla nga koy nattu yàlla bu la joxee marché ba ngay amee karaama da lay nattu yàlla bu la joxee alal alal di nattu la day seet ba xam ndax da nga ko dugal fu mu dugal loo am da nga koy dugal feneen mu ngoog moo tax lépp lu jaam yor rek nattu la lu ko dal tam nattu la muy lu neex mu lu naqal bu ko defee wala yi moom bu kalamaat yi bare nit ñi di yéemu moom ma ngay ci di xalat tay teewlu di sa borom yàlla waxon yéen teele isa ak yaayam lu mu len wax فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. كان لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم mu ne ñi nga xam ne dañoo wax ne euh, Jésus Christ yàlla la ñooñu ay yéefar lañu doon nañu ay yéefar ba noppi mu ngoog mu ne ñu saa borom yàlla wax leen yàlla waxate mu ne leen ma yàlla bu ko neexoon mu bëgg alak Isa bëgg alak yaayu Isa bëgg alak waa kaw suuf ñëpp ana ko ci mat dara da ngeen laaj saa borom yàlla yonente yàlla Isa moom day mu ta wax mukk ne yàlla la waaye askan bu ñu askan ci moom te ñu ko def mooy nasaraan yu ak yu réer yi ñoo koy wax yàlla ci kaw ci kaw réer askan googu ñu ko def te ba mu santaane wu koy andu ci loolu tax na moom ci aaya ji moom ak ndeyam ak waa kaw suuf lépp yàlla nga leen boole alak ndax baatu yàlla na ñun nag du leen napp su bay bëgg a di wax lu sëriñ naan lu yàlla nga te sëriñ ba moom boo demee xamul dara mu ngoog aha فمعنى كون العبد الولي عارفا بالله تعالى هو أن يعرف أن الله إله واحد ورب متفرد bu ko defee na nga xam ne e, e, bu ñu nee diw sàngam aarif billah la xam na xam ne yàlla ku xam yàlla mooy ci xam ne yàlla kenn du ko xam ولي بوخنا عارف بالله داي جمنا يالا كين لا كين دو بور كودول موم كين لو ديف اك ديندي في ادنا بي كودول موم كين لو لور اك غيرن كودول موم كين لو ييكيتك واتي بي سوالو تفرق سوال تفرق كودول يالا لول ولي دي لول لاي بنا كو خامنا يالا دونو كو خامنا سي mbiri xam ko xaj na ci xolub doomu aadama wala ay ay ay ay madaarikam nit ci mun ta yàlla mukk nit ku leen ne xam na yàlla arzullah may maanaam xam na yàlla ci jëmmam ja xanaa kay xam na ak lëf ci melokaani yàlla xanaa kay xam na ak lëf ci turi yàlla yi yi ñëw ci alquran wala waxi sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam xanaa kay xam na ak lëf ci kattanu saa borom yàlla akub nasam bu jëkk bu nas àdduna bi waaye jëmmi yàlla moom ku la ne xam na ko koo nga xamal ne seetaane la waxuma laa wala yu waaye duñ ko baax sax yàlla kenn du ko xam wa ka xam yàlla mooy ka xam ne yàlla du ko xam aha sama borom yàlla nee na wala yuxiquuna bi cheyin min ilmihi xam-xam du àgg sama borom yàlla wala xam-xamu yàlla ba jaam ñi xamuñu sa dara lu dul la ko soob mu xamal leen ko li mu nu ci xamal mooy li ñëw ci alquran li mu nu ci xamal mooy li sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci ay melokaani sama borom yàlla ak ay turam waaye lu dul loolu mun nu koo xam te xataa loolu sax xam nga du sat ndax da ngay jàng ci alquran ala al arsi stawa yàlla yem moo na ca kaw arsi ga mu mel ne day firi ne yàlla toog na ci kaw arsi waaw ndax yàlla dafa toog ci kaw arsi am na xadis bu yonent bi di wax sallallahu alayhi wa sallam yadxaku allahu yàlla ngay ree luy maanaam yàlla ngay ree loolu sax mënuñu koo xam dem di ko jéem a taawil di ko weddi ndax ëppale yàlla melokaani doomu aadama ci li nga yaakaar yow ñu ko wax da ngaa tas bi ba noppi taxqiid lépp nga boole daanu def waxtaan insha allah taala ci tawxidul zaat wa sifaat wal asma ba nu xam dëgg-dëgg aslaf ci melokaani sama borom yàlla ak nu ko war a xamee waaye saxaaba yi ñoom ayat yu mel noonu ak ahadis yu mel noonu liñ ci doon def mooy gëm ko ci ni ñu ko dégge ba ko noonu bañ caa dugg di ko jéem a walbati mbaa ñu koy jéem a weddi mbaa ñu koy jéem a taawil kon nun mënu noo xam yàlla lu dul li ñu yàlla xamal ci ay turam ak sibaatam te loolu tam luñ ca lañ ci yàlla xamal donc lañ ca mën a xam te mooy nangam am na waaye nu mu amee loolu sax mënuñu koo xam aha وبعض المتبعات المشركين الجهلاء المخدوعين يقولون للناس إن الله تعالى يقول ñenn ci ñi nga xam ne ay nit yi biddaa lañu ay mushrik lañu xamuñu dara dañuy faral di wax nit ñi naan sa borom yàlla moo ne irifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni ñu ne yàlla moo ne taarif ko fii xam leen ma bala ngeen maa jaamu du ngeen ma xamul ñu ngeen may jaamoo ñu ne yàlla ma wax loolu taarif ko fii loolu su ngeen ubbee buxaari yi du ngeen ci fekk wax jooju bu ngeen ubbee muslim du ko ca fekk mboolem saxaax yi ñëpp mboolem euh, sunan yi Abu Daawud Tirmidi Nasaa'i Ibnu Maaja benn ci sunan yi ñëpp boo demee ubbi Muwatta doo ko ca fekk boo demee ubbi Masaanid yi doo ko fekk boo demee ubbi Maajim yi doo a ca fekk doo fekk wax jooju ci benn téere xadiis du benn waaye teewul waa Sénégal ñoom dañuy faral di wax wax jooju lu bare bëree bëri naan yàlla moo ne na ngeen ma xam bala ngeen maa jaamu bu ngeen ma loolu di cànkute goo xam ne bii kenn du la ne fii la ko yàlla waxe ci alquran mbaa fii la ko yonente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam xadis xam nga ne xadis yi xadis yi dafa am ay téere yu mu ne yi ñëpp xam xadis bu ne am na sax faf numéro identification xadis bu ne am na numéro ci téere ba xadis bu ne tudd mën na nga ne mi ci buxaari wala muslim wala benn suri sa xaaj nangam xaaju ñetteel bu ma wala bu ñaareel ba sa page nangam hadith numéro nangam loolu kenn du la ko waxal ci xaj loolu ñu tuddee hadith i'rifuni qabla an ta'buduni nekkul kenn ci ci seen kenn loo ko wër wër wër doo ko gis ci benn seen hadith ah bu ko defee dañuy wax loolu nit ñi ba natt nag mais dafa am beneen xam-xam bu bokkul ak alquran ak sunna bu ñuy wax al maarifa ma ne la ba mu doonee lu bokkul ak alquran ak sunna la borom la borom ba mu doonee lu bokkul ak alquran ak sunna lan ko fa war na ñukk te def ni sayidina muhammad def sallallahu alayhi wa sallam wax la mu wax te mooy in attabiu illa ma yuha ilayya du ma def lu dul topp li yàlla wax wàcce ci man samay kitaab ak sunna waaye ñoom mut nañ seen xam-xam bu ñu tudd al maarifa di ci sànq nit ñi ah تصور عبدا يدعي الايمان بالله تعالى وهو يكفر بجميع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Imaginez ma yow miy koo xam ne kii nee na ab jullit la waaye weddi na mboolem ahadisu rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na buxaari yi la ci nekk du dëgg muslim la ci nekk du dëgg sunan yi benn du ci dëgg mboolem ahadisu rasul da ko weddi ci benn baat aha nee na kiy nekk li xadis bu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu la nee diw nee na ma diw ko diw ma ne xam nga loolu moom dafa yàlla sama nee loolu waxi ku dee la jumu jële ci ku dee kooku itam jële ko ci ku dee mu ne nag loolu xool xoolaru di wax buxaari tey ak muslim ak booleen téere xadis yi ña rijaalu sunna ci nekk tey génn nañu àdduna sayidna Muhammad mi ngeen bi def sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna loolu kay kenn werante wu ko dina nag ginnaaw la waxi ku dee la ko ko de kenn du ko topp bàyyi waxu njub ñoom li ñuy wax mooy leen xaddasani qalbi an rabbi subhanallah sans xol sans boo nee xaddasani maalikum an naafi mu ne maalik dee na naafi daan nga ma nekk lu waxee ku dee dundale ci ku dee man sama xol moo ma wax jële ci sama borom fee mu ne jële ci seytaan fee mu ne xaddasani qalbi an seytaan te waxoon loolu muy bëgg biir waaye moom xamul dara aha seetan bu seetlu woon li mu wax ne xaddatani qalbi an rabbi sama xol xi wax na ma ne ma sa borom yàlla nee na loolu bu ko seetlu woon dina xam ne moom da ngay woote kon ak ko nen xama sa ku woote ko nen xam nga nag yëfal aha te itam bu ko seetloo dina gis ne wedd na mboolem ahadisu rasul sallallahu alayhi wa sallam wéddi na ak sunna mutahara bi akmaliha ci benn baat soo xam ne ci lii mooy sa ndim ba nekk ngay tudde sa bopp aarif di tudde sa bopp ab jullit di tudde sa bopp ab sëriñ yaa ngi yor sa xam nga dina tuddal ci dara te bu nit tuubul dellu ci kitaab ak sunna bu yomul qiyaamata daañu fettul leen tet ah te sunna lépp dañ ko wàcce mu jóge ci yàlla moom mu weddi ko lépp ci benn baat nee na Malik ak Naafi loolu daal waxe ko dee la du mu jële ci ku dee loolu kenn du ko topp lii la ñuy wax أها. ويقول الشيخ أبو زيد القيرواني في كتابه الرسالة حقيقة أن العبد لا يمكن أن يعرف الله تعالى. بعدما ci téere boo jël ngeen xam ne ñëpp muy risaala ñun ñëpp ñu xam ko di ko jàng di ko gone te ba nuy gone mi ngi ñuy wax ni lii dëgg moo di ne nit mënu koo xam mu ne lan ah mu ne laa yablugu kulha sifatihi al waaqifuna mu ne ñi nga xam ne dañoo dañuy jéem a wax sam borom yàlla nan la mel mënu ñoo fexe mukk ba jot xam-xam bu ma sëkk ci wax yàlla nan la mel loolu mu te nekk borom la laay wax ah ñi nga xam ne dañuy xalaat ci jëmmi sa borom yàlla ji loolu luñ ci xalaat xalaat mënuñu koo pees mukk mënuñu koo xam mënuñu koo xam yàlla kenn du ko xam ah mu ne xalaat ci yàlla kay xanaa dañoo war a xalaat te xalam ci ay man mandargay kattanam xam-xamam bu bari boo xam ne bii mën nga koo xamee ci ni mu tëre jant bi ak suusi ak planète yi nga xam ne biñ bañ di gëstu doo di ñuy wax ne saree ba daje ba daje benn philosophe mu ne ma yàlla amul ci li mu gëm ndaxte adduna si ñuy wax moom moom dafa dafa dafa dafa jékki am dafa am di ban bu mag boo xam ne bi mu amee ci la jant bi euh, ci la ci weer wi ak jant beeg biddiw yu euh, di daw di di daw bu dëgg bëccëg bi am ma ne ko loolu nga wax léegi kaay ma xool xoolal ma suuf di diggam ak jant bi ñaata ci million kilomètres la mi ngi toll ci cent cinq soixante million kilomètres taqriban cent soixante million kilomètres mooy suñu diggante ak jant bi bu fekkoon ne dañ dafa wàññiku ba bay genn wàll gi di quatre vingt mille kilomètres suuf si day mujj tàng jër ndox mi fu nekk day évaporer ba dañuy dee ñun yëpp bu kon itam dafa dellu gannaaw ba doon deux cent soixante millions kilomètres suuf si day sedd guy ba boo boo jooyee sax rongooñ yi day day day day daal di dee ci waaw suuf nekk kon si wetu jant bi jëlee ko jëlee bu yem boo xam ne aw tàngoor ak énergie la fa jógee di ñëw ci kaw suuf ñu mën a dund man fee euh, bay gàncax yi di di di di ci dund nit ñi bàyyi nañ di ci muy daw di wut jant bi moom suuf si ci a ci ay xel su déterminé te boo seetloo suuf si daw muy daw di wut jant bi sax dafa am ay vitesse yu mu topp te yenn saa mu yokk vitesse bi yenn saa yi mu wàññi ko bu koy yokk day fekk mu gën a jege jant bi ndaxte orbite bi ñuy gaa bi jant bi dafa nekk lu ovale day am su foo xam ne bu fa tolloo day gën a jege jant bi su ko jegee jéegu mel noonu boo xa jant bi day xëpp suuf si suuf si di xëpp jant bi su ko jegee jéegu mel noonu su yëkkul aw xelam day dal ci kaw jant bi te bu ci dalee dañuy dee ñun yëpp waaye bu ko jegee rek. jamono yi te gën a jege du sori euh, njaal bi ko weeru janvier dañ koy calculer at mu jot ci ban la ak yan yan heure waaye jamono yooyu bu ñu jëm ci ba tolloo day yokk witeesam pour lan yokk witees googu day tax jant bi gën a néew doole tuuti ci xëcc bi ñu koy xëcc jaasibiye bi nekk ci jant bi palanteer bi nekk ci jant bi di xëcc suuf si su suuf si yëpp seen witeesam doole daw googu muy daw day wàññi xëcc bi ba nga xam ne bii doo daal ci kaw jant bi su demee nag ba àgg fa nga xam ne waaye ko gën a soree mu waaj waaj mu wàññi waat vitesse bi waaw suuf si daw te moom amatu pneu amul ay laaj yu ñuy naawee kenn def ci essence suuf si daw te nekk ci boo xam ne bii bu gën na jege jant bi nu dee bu gën na sori nu dee ñu ne loolu daal jékki-jékki am par hasard yàlla amul ko lool du dëgg xel na ngungu ab ordinateur sax alku bi nisaar ba mënoo koo fekk fee na la daal jëkk jëkk ne ma la am fekkee amuluf loolu mënut a nekk ku gis ordinateur xam ne tubaab am na ndax moo ko defar ku gis si dëgg xam ne yàlla am na ndax moo nas nas bu jub bu rafet bii kon nag sans borom yàlla booy xalaat ci moom da ngay xalaat ci kattanam ak xam-xamam bu bu rëy asamaan si ak suuf si bu mu yebe doomu aadama ba tax muy nit di noyyi di lekk di naan biiram mu def ci deret deret gi doon ay globules blancs ak ay globules rouges ak plasma globules blancs yi di féetewoo xeex ci biir bi ci ay microbe globules rouges yi féetewoo indi ci biir yaram bi ak tàngoor li ñuy jëlee ci xumu yi boo noyyee nas bu jekk boobu nga xam ne moom la sàmm yàlla nas nit nas ko àddina boo ko xoolee xam ne yàlla ku am xam-xam la xalaat ci nasam bu jekk ba xame ca xam-xam xame ca kattanam xame ca sañ-sañam waaye jëmmum ja moom borom bi taala nee na bu ca kenn xalaat loolu borom xam yëpp a ko wax munoo xalaat mukk ci jëmm yàlla bi aha mu ne mu ne mu ne jëmmi saa borom yàlla ji nit ñi munuñ caa xam dara lu dul la ko soof mu xamal nu ko def muy ay aaya alquran yu aju ci jëmmam ji wala ay ahadis yu wax ay ay turam wala ay noloom lam ñu si xamal dong lañ ci mën a xam xëy loolu sa xam ko du mat aha téere waxi borom risaala jooju am na borom xam-xam bu mag borom xam-xam boobu moo ci sarxa bokkutoon ci sarxa risaala saram boobu ñu wax mu inu talabib ak cheikh ousman ibn omar moo sarxa risaala tudde ko mu inu talamid borom mu inu talamid dafa gën a leeral waxi abu zayd jooju mu ne lan mu ne mu ne bokk na li jullit ñi war a gëm fas moo di ne dëgg dëgg ci saa borom yàlla nam nal dëgg dëgg ak na mu doon dëgg dëgg dëgg nit munu koo xalaat nit munu koo xam aha ñi nga xam ne ñi dañuy jéem a melal saa borom yàlla munuñoo wax mukk ni yàlla mel ndax munuñu koo xam dañ ciy wax rek liñ ci xam te mooy liñ ñëw ci alquran ak sunna leneen liñ ci wax te ñëwul ci alquran ak sunna itam jëlewuñ ko fenn صحن في مقبول أمنا كي برام برام كيرا دي أنا وحي لولا بنافي مونا عبد البيت يو رفت يو خدني أنا وعدو قوي شيخ عثمان بن عمر ما يوح كي معاني سلامين سلامي كالا مونا عبد البيت يو رفت yu am solo yoo xam ne moom la kenn ci waykat yi wax bay de mooy lan laa yaalamu allahu illa allahu fan laa yaalamu allaha illa allahu fantabihu والدين دينان إيمان وإشراك وللقلوب وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن درك الإدراك إدراك هنا لا يعلم الله كم خمل يلا إلا الله كبر يلا yàlla rek moom moo xam boppam waaye mun daa kon mun ta xam mukk yàlla xam jëmmam ja dëgg dëgg dëgg mukk munu munu ko fantabihu kon nag bàyyi leen ci xel wa diin diinaani mu ne nit ñi nag ñaari diine ñaari mbooloo lañu imaanun gëm yàlla te wéetal ko yàlla yàlla boole ca mbooloo mooma wa israakun ak ay bokkaalekat yoo xam ne dañuy bokkaale yàlla yàlla musal ci loolu mu ne walil uquuli xuduudun mu ne xel nit ñi dañoo am limite كل ذا أمس لا تجاوزها حدود واحد من نقو غير من قوة. والعجز عن درك الإدراك إدراك من بعد كخم يلا موي كخمني لفظنا كخم يلا كخم يلا موي كخمني لفظنا كخم يلا يلا كدي نقو خم كدر مم دون خم جد مم جد كن دفني خم نيوات المعرفة لأن يلا من خم لين ما دايو لولا لي أكن في النبي النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكان يدري في حال القرسي يا لن يعرفوني قبل أن تعبدوني من نقوم في بني سير حديث ما عند الله في الدهي كم كون ببني سير حديث بي بخاري بي مسلم بي أبو داود بي نسائي بي ترمذي بي ابن ماجه بي وفا إمام مالك بي مسلم إمام أحمد مع جبو الكبرى مودم الصواء بسيري جيح تحديث سير حديث يجرى بني بني حديث بخاري من لك الجنة واحد وجيه don nag bu ci bind sax muy ay fen nga xam ne téere bi da koo ba noppi rijaalu sanad yi amu ko wala mu am ko waaye ñu ne kii ay fenkat lañu loolu soppal amul doo ko sotti ci benn téere xadis te ñoom ñu di bëgg a rey nit ñi xamal yàlla ak dañ lay ngok am na xale boo xam ne nii dafa ñëw ne ma moom day wedd day wedd laa ilaha illallah fukki junni ak nangam bala moo tax gis bu ne ma ne ko laa dama di ko lokk sant mu ne ma damay dëkk ma ne ko dëkk nit koy dikk xanaa du yàlla ndax sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu fi andi zikr yàlla jaarale ko ci moom mu andi ko jotal ñu ko ndax moo la sant bii ndax sayidna muhammad daa nga toog yow kuusi ku guddi gu mel ni gi nga yor di wax naan day wadd laa ilaha illallah ba mat fukki junni nangam ci ay bidaa nga nekk te ci dof nga jëm soo dëppul ci dof nga jëm sa balaaxara nga dem naar jahannam ne ko ne ko mukk ci yoonu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak kaar yi nga ne moom la yonent bi indi sallallahu alayhi wa sallam ñu war koo zikr ci suba ak ci war koo zikr ci booy dugg jàkka jàkk booy génn booy dugg duus ba ak booy génn booy sol sa yére ak booy dem sa booy génn sa kër ak booy dugg azkaar yooyu nga xam ne moo ngay war a zikr boo xëyee ak bu ngoonee azkaar yi yonent bi jàngale mooy azkaar ya nga war a def demal gat ko lu te yonent bi indi ci lim yemal ba bu la nee yokkal yokkal bu la nee yem si yem si waaye dem sent bopp te naan damay zikr ak damay nangam ak damay nangam ndax damaa bëgg a xam yàlla yàlla kenn mënu koo xam bari na ci ci ay xale yu dof yoo xam ne ñii ñoo leen dof loo ñuy wax ay wax yu mel noonu den wax irifuni qabla an ta'buduni waaye maa ngi wax xale yi yëpp ne leen nañu dellu ci alquran ak sunna bu fekkee ne bi dañoo bëgg jëriñ ci àdduna ak ci àllaaxira maa ngi ñaan ci li fay diine yi ñu jàngalaat nit ñi seen diine delloo leen ci waxi yàlla delloo leen ci waxi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xamal leen ni diine mooy yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yàlla nu yàlla gindi yàlla nu yàlla seetal boppam yàlla nu yàlla jubal yàlla nu yàlla musul ci seytaane ci pexeen yàlla nu yàlla jéggal suñuy bakkaar yàlla nu yàlla may suñ dund bi lépp lu ñu yaxal ko ci jàng diineem ak jëfe ko والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنين نعنى النسل برد يالو جد النسل البكار يبان سيطة مسيطة البطل في يوان وطبع الله سراء نسك في يرم يرم لي أنجرنا من تبني فاسق السلام عليكم